li tabarkalla kilifa yi ci dese ngi ci sunu doomu ndey yu baax yal xaaji Bachir Diagne xaaji Moustapha Cissé tabarkalla ak sunu xooñóori doomi mustarchidin yi ak mustarchidaat yi waaw Euh, kilifay gouvernement yu jigéen yi ñu fi tudd itam nu jottali leen sunu yëg ak sunu ngërëm rekk di ko delloo ci ki nu bokk yilif muy président ci boppam waaye itam sunu mbokkum bopp mi it mi ngi fi Babacar Ñang lu di ndaw ànd ba léegi bés bu ne mani bala ma tëdd nelaw da ngeen nekk benn ak président ci boppam ndax ay wu rëy ci réew baax waaw bés bu nekk wax ko mu mel na kon nag tabaakal la yal na yàlla yàggal jàmm yal na yàlla yàggal jàmm yal na yàlla yàggal jàmm te mu bañ a ëpp nag waaw waaw mu mel ni yooyu yépp di yéene jàmm di ko dox di ko liggéey yombul nag waaye kenn du bay yombul wante kenn du bay yombul damay def léeg-léeg ma woo ci sama njaboot kenn ni ko nangam de bu nu ko defoon mu baax de mu ni ma bu nu ko defee mu baax lool bu ca kanamee ma woowaat ko ni ko nangam jooja daal defe naa bàyyi koo gën mu ni waaw bàyyi ko rek a gën waaw bu ko defee ca laa xam ne nag ndekke mag bu bàyyiwul xelam ci boppam te ñi ci bàmmeel yi di ko jàngal rek keneen du ko jàngal waaw waaw moo tax wax dëgg piir la kenn du ma wax kenn du waaw kenn mënu ko sax waaw kenn mënu ko sax bu ko kenn doon man Babacar Si mën ko turus na waaw waaw bu ma dee wax farata bu àndul ak sama turandoo duma ko def mukk waaw bu àndeek moom nag ma def ko waaw boo defee mu topp ca gannaawam rekk mel ni taalibe bu tuuti ku rus cheikh la def ku rus waaw ba moo taxit ñaare lu ma wax bu dee tojaange ci mën la jóge waaw kenn waxu liggéey rek dafa des ku am kilifa ci biir ak ci biti liggéey rek moo la dese ju bare sax deseetu la liggéey rek moo la dese waaw ku am kilifa ci biir ak ci biti liggéey rek moo la dese waaw ku am kilifa ci biir ak ci biti liggéey rek moo la dese bu ko nag nu ngay gërëm sunu rakki bopp waaw ak sunu mbokkum bopp alaaji amit jéen sunu mbokkum bopp la haj Mansour Mbay sunu rakki bopp la waaw ñu ngi leen di gërëm ci seen waxin tabarkalla di ko aj ci bopp sëriñ Abdu ndax sëriñ Abdu nag mooy seen kilifa wax dëgg yàlla ñii fi nekk di doom ak ñii fi nekk di rakk mooy seen kilifa ku ko ci nangu lool la yàlla def ku ko ci nangu wul itam mu topp ci sama gannaaw rek sa jàpp yàlla waaw bu ko defee noonu rek lañ koy defee bu mel na kon jataay yi dafay metti ci bokk yi di metti ci ñi ci naaj bi di metti ci ñi am soxla tabarkal la tabarkal la nu sànnente ay kaddu mu gën gàtte ah Sëriñ Abdou wax nag mooy la Alaaji Duyo Géey waxoon nee na sa maam Seydil Hadj Mali daf daan def bu fajaree mu wax nit ñi lëf bu gannaaw timisee mu wax nit ñi lëf noon la daan jàngalee bokkul ak bu téere ba waaw ndax nee ñu ba téere xewee la xam-xam sànq waaw xam-xam piir ci dënn góor lay jóge waaw waaye ba téere xewe la sànq waaw laysa fil kutubi wal qaraatisi ilmun innama al ilmu fi suduri rijal waaw bu mel ni kon Cheikh El Hadj Malick waxtaan waxtaan wu am solo nee ma bokkoon ci ñi bari fitna ne naka laa koy gunge ba mu àgg ne ma roccee ko daw doxi sama soxla nee na ba mu waxtaanee ma natt ko ba waxtaan wuy bëgg jeex ba dellu si fekk muy àggal nee nu ànd ba ci kër ga nee mu ni ma nu ma ko waxe woonati nee ma ni yàgg ci bu mujj ma ni ko ah, dama génnoon mu ni ma yëg naa waaye nu ma ko waxe woonati te doo ko wax baaxul léeg-léeg nit ni ma la nga waxoon ma ne ko lu ma wax mu ne nangam ma ne ko fàttalikuwuma ko waaw da ko déggee neneen waaw ba moo tax dañuy waxtaan rek ci wàllu diine mësuñu dañ di waxtaan ci wàllu diine wàllu diine ak wàllu politik du ñu ko jaxase bu ñu dee def politique dañu wut parti waaw jaay carte def meeting nañ ñëpp tëgg sabar ba moo tax xàmme baax danoo waxtaan ci wàllu diine li ñu ciy waxtaane moo di li ñu tudde alxaqiqa ku ne ko tudd te kenn firéebu alxaqiqa ak alaada ñoo am alxaqiqa mooy li dëggu li dëggu boobu dikkul dund du mët alaada mooy li nga tëral muy jay sa bakkan te boo ko bàyyee du tee sa dund baax bi nit mën na ci yem bële bu ci nit yemee yàq bu ko defee xaqiqa bu nekk yàgg sa moroom ci péncum diine rekk ngeen xaj ci ngeen di waxante ci ngeen di fasante yi dëggu itam war a ëmb diine daf ci am yu ñuy gis am ci it yu ñu dul gis yu ñu dul gis moom la yàlla dugal ci cadre li mu tudde alxayb alxayb mooy li li ni jonn te nekku am na nag ñu ko ñu ko gëmul am na ñu ko gëmul waaye am na it ñu ko gëm alladina yuminuuna bil xayb am na wa yuqimuuna alsolaa wa mimma razaqnaahum yunfiquun am na ñu gëm li ñu gisul ndax li ñu yëg am na ñu gëm li ñu gisul ndax li ñu yëg dañu wax ni ku gëmul li nga gisul doon liggéey ni ñëpp di liggéeyee am téeméeri junni te yooyu yëpp ñàkk xàmme la ñàkk xàmme benn fukki junni nga def ci ba def ci lu rëy nit nga def ci ba def ci lu rëy nit ci benn fukki junni gor a ngi dend ak yow bu xàmmee jàng liggéey ci sellal ba am ca téeméeri junni te defu ci sax lu wokk jullit loolu mu mat a seet bu mel ni kon nag xaqiqa bu duggee njëriñ dikk aada bu duggee lor dikk jàng nag ku ko bëgg foog nga sonne ko du tere nag liggéey di nga gis ku liggéey ba ba ba wàcc di waxtaan ba ñu julligee ma nga wàcc ci six heures diggante bi jàng xaj na fi dëgg-dëgg wa allama aadama al asmaa kullaha moo tax xeet wi donn ko donn ko looloo tax xeet wi donn ko yàlla dafa wax aadam ni ko bu sa bët safee xorom xasan génne rangooñ mooy firi jooy yàgg sa xeet jooy la benn nag naqar lal ko muy jooyi naqar walla bànneex lal ko muy jooyi bànneex waaye daal loolu jooy la tudd noonu la ko jàppe jàngal ko ko baat par baat yëkkati tànk teg dox la bàyyi tànk ya lem ko àgg suuf toog la noonu la ko ko jàngale moo tax ñu ni euh, dafa wax rekk wa allama adama al wante sëriñ Babacar si daan wax ni al asma wal musammayat waaw al asma wal musammayat daan ko di wax moo tax maa ngi dégg benn boroom xam-xam wax ci waxin yu gàtt ci fan yi yu neex te dëggu ndax ah, dañ ko ni firil ñu lan moo teqale bayn al ilmi wal falsafati wal maddiyati al xiwaariya lan moo teqale science ak philosophie ak matérialisme dialectique mu firi ko firiin bu nga xam ni bu doon nun fi nu toog dañu naan science mooy jël saaku def ko donju suukar ba mu fees jël benn tàngal dugal ci ni la wutal tàngal bi xamuloo ni soo bàyyiwul rekk di jot tàngal bi kooku mooy science dafa laaj recherche boo bàyyiwul da nga génne lu nit téye di ca wax ñépp di ko dégg wala nga génne ca loo taal muy làmp piir ñëpp di ca leeral wala nga génne ca luy dawal oto piir nga dugg ci tukki moom daal yaay bàyyi waaye boo bàyyiwul da daj tàngal falsafa nag mooy sàkku bi fees nag doom ji suuka tàngal nekku ci waaye nee nañu la génneel génne ci tàngal waaw di nga xam lu ne waaye doo taxawal dara loolu moo dee al falsafa bu dee wàllu al maddiyatul xiwaariya nag mooy sàkku suukar baa ngi tàngal nekku ci wante nee nañu la kat tàngal nekku ci waaye ñemeel yàlla boo làmbee ba ca biir rekk neel tàngal baa ngi soow ko rek waaw donte tàngal nekk ci moo tax ñoo fi daq coow boo waxee ñoom ñun la yàlla amul nangam nangam dàq ko bil kulliyati Eh, kontaan na bu mu dafa bëggoon rekk ñëw ngeen gis ko bi ci moom bu yewwee bu jekk rekk dellu ci yitte yi eh, ngeen eh, bàyyi ko xel ci loolu mu yewwee bu jekk rekk ngeen bàyyi ko xel ci ni ma rekk ko fi indi tabarkal waaw sëriñ bi ak seen njaboot bu baax bi bi nga xam ne bi dal na duyu. alhamdulilahi rabbil alamin nee na bi nga xamee ne te duyu. te incha allahu te tey. te nee na incha allahu te neex na. ne incha allahu ndox mi ku ci naan daa màndi incha allah. ku ci sangu daa set. ne ku ci sangu it daa set. ku ci fóot dana set. ku ci la nga ci fóot dana set. ku ci togg dana neex. ku ci togg itam dana neex. yal na yàgg. ne lii yal na yàgg. na yàgg. nee na yal yàgg. yal yàgg. ñaari yëf nag moo waral tànkam yi. ne yii. benn benn bi day digganteem ak sëriñ Cheikh Tidiane mi toog ne yàlla ak yonent bi ak sa maam nañu fab te gardeel ñu ko nag boobu diggante ne boobu yaa ak moom rek këla ne kon nag bi ci des moo di jullit yi lii ñu ittewoo fa tabarakallahu ahsanul xaaliqiin teg ko ci sa loxo. ne moom mu yaakaar ni mi ngi bokk ci rangu jullit yi. ne ne mu jóg ngir teewe si ko jël si fi njariñ. ak yow Seydina Cheikh li nga ci moom mu jox la ko. nee na yonent bi dafa wax ni képp koo xam ne ittewoo woo mbirum jullit yi bokkuloo ci ñoom. nee na ndegum mbirum jullit yi yëpp lay sonne kese moo xam ni dañ koo yëkkati teg ko ci loxo Seydina Cheikh Tidiane mi. ne yàlla mu daj yàlla mu yàlla daj di soxla loo jullit yi wàllu lislaam ñu di ko jaarale ci yow ak seen wàllu àddina lépp ndax nee na lislaam boobule ak àdduna boobu mu dañoo mënul taqali te it nee na ba tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiina yooyu ñaar yàlla dajale na ko ci yow. waa adduna seen yaakaar ci yow yàlla bu ñu dañ di ko am mukk te nag bu ñu bu ñu seen aajo fajoo nañ yóbbu seen adduna nag te balaa ka los yow ñi soxla yàlla yi di ñëw di fi fekk yàlla toujours ñi soxla yàlla itam ci seen wàll ñu ñëw di fi fekk yàlla toujours kon nag gaañi nee na kon gaañi yàlla nañu yàlla boole defal sutura. mbir mi. mu ne mbir mi. ëpp na li ngeen di wax conférence. nee na li ëpp na mbir mi ngeen tuddee conférence. ñaari daara fi daje. ne fii tey ñaari daara fi daje. daara yàlla ju adduna andu. daara yàlla joo xam ne ji adduna andu ca yàlla rek la. ak daara joo xam ne ji yàlla ngi ci adduna ngi ci. ak daara joo xam ne nag dafa boole ñaar moom addinaa nga ca biir daara ja yàlla nga ca biir daara ja. bëgg a doxal seen adduna. ne kon ñuy bëgg a doxal seen adduna kese. fa tabaarakallaahu dégg nañu lu doy sëkk. fa tabaarakallaahu ñooñu dégg nañu fi tey lu doy sëkk. ku ko def kand yi ci sa kanam. ku def loolu làmp mu nekk ci sa kanam. doo suuruf. doo suruf mukk kenn du la suruf loo itam ci sa wàllu àdduna ñi nga xam ne soxla woon nañu yàlla ñi nga xam ne soxla woon nañu yàlla tabaarakallaahu ñi ngi fi fa tabaarakallaahu ñi ngi fi na ngeen góorgóorlu na ngeen góorgóorlu ba li sëriñ bi di génne ci dënnam fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqiin ba lii sëriñ bi di génn ci dënnam fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqiin muy loo xam ne ca yàlla la jaar bàyyi ko muy loo xam ne ca yàlla la bàyyi ko ak fu mu mën a jaar gannaaw bi ca yàlla la bàyyi ko ak fu mu mën a jaar ba agsi rek ca yàlla la bàyyi ko ñun ñëpp ñu fexe ñun ñëpp nag ñu fexe suñu fi jógee suñu jógee fii la nu fi déggee la nu fi déggee bu nu teqalikoo teeg moom loolee nu fi jëlee nanu ko naan. waaye bu ko def lu mbubb. waaye nag bu ñu ko def di mbubb de. di ko jëriñoo. di ko jëriñoo. suñu digganteeg suñu borom. di suñu digganteeg suñu borom. suñu digganteeg suñu àdduna. suñu digganteeg suñu àdduna. suñu digganteeg ñi ñu yaakaar ci wàllu yàlla. suñu digganteeg ñi ñu yaakaar ci wàllu yàlla. ñuy suñu kilifa. ñuy suñu kilifa. ak ñi ñu yàlla dénk ci wàllu àdduna. ak ñi nga xam ne nag ñoom la ñu yàlla dénk ci wàllu àdduna. suñu fi jógee lii nu fi jële yàlla nañ ko doxale noonu yàlla nañ ko doxale noonu. sëñ bi dafa def li Seydi Aboubacar radiyallahu taala anhu waxoon. nee na Seydi Cheikh dafa def li Seydi Aboubacar si radiyallahu taala anhu waxoon. ne man kat maa ngi amee sama mbuusum xam-xam. Seydi Aboubacar dafa ni man daal maa ngi amee sama mbuusum xam-xam. bu leen defee ni penc mu ne dama ko fay. bu leen defee mukk nag ni fu ma toog rek ci penc damay daal di tekki. bala ma ko tekki. bala maa tekki mbuus bi. danaa xam kii ma koy jax da koy. danaa xam kii may bëgg a jox sama mbuus bi li ma ciy jële jox ko lu muy jariñoo ji la wala lu mu dul jëriñoo. su ma seetee ne kii may bëgg a jox lii yelloo na su ma seetee ne kii may bëgg jox lii li ma ko jox yelloo na ko. ma jox ma sompal ko ca lu tolloog moom. ma sompal ko ca lu tolloog jëmmam. ak xelam te wéy. te wéy nag ma nag sama mbuus. nee na yàlla na yàlla dimbali. na yeexaay bi nag. nee na yeexaay bi nag. nee na sa papa Habib moo ko doon wax léegi ni bii muy ñëw yéen a bokk avion dafa ñëwoon doon ko seet si te it nee na mu bëggoon a egg ci yenn bokk fële ca Parcelles Assainies waaye nag dañu wax ne waxat dimil aham waaye nag dañu ne boo bu fekkee ay yëf dañoo ràng te nga bëgg cee jëm seetal la gën a ittewu nga jëkke ko mooy sa conférence bi nee su fi jógee nag mu dem fi muy dem nee su fekkoon ne du yooyu mu lim kon nee na jataay bi dana fi gën a yàgg nee yal na yàlla yàggal saxal sa sax yal na yàlla boole ci yow njëriñu jullit yi yépp ak ya teqali ko woon ci ña nga xam ne ñoo la dawlu woon ca way yiw ña nee loolu yàlla wax ci alquran ni ko amee njëriñal nit ñi da ngay yàgg ci suuf si aay jooju yàlla na diri ci sa kaw. puso bi nga xam ni mooy gaar wàllu adduna ak wàllu laaxira. puso bi nga xam ni mooy gaar wàllu addina diw gaar wàllu laaxira. yàlla teg na ko ci sa loxo foo toll yàlla na jox wëñ woo wéyeeg. sëriñ bi yàlla teg na ko ci sa loxo yàlla na yàlla jox wëñ goo foo toll goo goo moom. ak sa njaboot. ak sa njaboot. say rak say jarbaat say jarbaat. lépp loo xam ne bii suñ ko askan suñ ko suñ ko dee askan wi ci seen xaaj may lañ ko askan. ak lépp loo xam ne nag bu ñu koy askane ci Seydil Hadji Malick lañ koy askane alfaxam ma yor Cheikh El Hadji Omar Fouti Cheikh Mouhamadul Ghali sa turandoo Seydi Ahmad Tidiane rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom tabaraka wa taala sëriñ bi nee na tàmbali nga mbir mi ak bismillahi rahmaani rahim yàlla na nga ko àggale ak yàlla na nga ko àggale ak alhamdulilahi rabbil alamin te nee na ko at yu bëree bëree bëri. te at yi yàlla na bëree bëri bëri lool ci kanam. yàlla bu mu yem ci biir yàlla nay répété di dem. nee na nag yéen mbokk yi sëriñ bi ne mi ngi leen di siyaara. kenn ku ne. kenn ku ne. na jàng fatiha. na jàng fatiha. jàng salatul fatiha. jàng salatul fatiha. ñu jàng saaru wadduha wal layli. parce que yéene yéene sëriñ bi. fasal ko yéene sëriñ bi. ak mbokk yi ak njaboot yi ak mbokk yi yëpp ak njaboot gi yëpp. ñu teg ci wadduxee wal layli. ñu teg ci wadduxee wal layli. suñu agsee ci wala sawfa yuxtika rabbuka fa tardaa ñu takraar ko. bu ñu bu ñu tolloo ci wala sawfa yuxtika rabbuka fa tardaa ñu ñu baam ko ñetti yoon. door a àggale saa mi. alam nashrah. alam nashrah. noonu. fa inna maa al usri yusran inna maa al usri yusran. fa inna maa al usri yusran inna maa al usri yusran. ko ñu takkaraat ko ñetti yoon. door a àggale saar bi teg ci muawwisatayni tëje ko salaatul faatixi ku mënul salaatul faatixi salaatu boo man nga jàng ak jaaram jéen soxna ak jaaram jéen sëñ bi ne mi ngi leen di nuyu bu baax mel na wax seede baax na ci mel ni wax seede baax na ci tabaarakallaahu yal na yàgg te nun ñépp nu jëriñoo ko